naka la. turu VC la. VC bon man maa nekk coronateur mouvement Andu Jàppale Liggéey. ngeen set setal bi dafa nekkoon loo xamante ni dañ ko yàggoon a mébét dépp bañ taxawlee mouvement bi mais dañoo amul woon koo xamante ne nit ku am valeur ku mel ni Lamine koo xamante ne mën nañu amal ay soutien yoo xamante ne dañ mën a taxawal set setal bi bon yàgg nañ ko taxawal nag dem nañ ci autorité bu ne yéex nañ koo xam parce que mouvement bi duré na six mois avant ñoo xam Lamine mais c'est vrai que mouvement bu demee ba am ampleur am lii ñu am tey c'est grâce à lui parce que ñun c'est vrai que ñun ñëpp yemuñu mais ñenn ñi dañoo desoon a gëm seen bopp ku ci mel ni man dama irrégulier woon dama daan ñëw tey des fois mais après dañu gis naa ko ñun dañoo soxla ay jeunes Pikine noor dafa manqué ay jeunes yoo xamante ne dañoo war a ambitieux jël seen responsabilité maanaam taxaw jóg taxaw jàppale seen gox. lii nii set setal bi yamul fii rek dem na ba fële fépp a set jàkka ji lépp imaam yi dañoo taxaw ñaan xam nga loolu noonu nekk lu rafet ci set yii nii ak leneen ak leneen loo xamante ne def nañ ko loo xamante ne mu ngi jóge ci moom kon loolu noonu ñu ngi koy sant di ko gërëm. léegi ndaw waaw ñun ay ndaw lañ rek gis nga am na plus de neuf morts yoo xamante ne am na ci dëkk bi c'est vrai que ñun ay ànduñoo ak Macky ànduñoo ak Macky ay opposants lañ parce que ñun c'est vrai que Thierno Alassane Sall lañ àndoon suñu mouvement la ñoo ko moom mais ñooy xool ku ñu doy ñu ànd moom mais vu que vu que Macky Sall c'est vrai que deful dara ci dëkk bi ay jeunesse lañ plus de ñaata chômage moo nekk ci monde bi di dox arène nationale bi jege nañu ay agression yoo xamante ne bul xam ñu jël suñu initiative dafa amoon ay gilet de sécurité yoo xamante ne ñoo créé woon pour rien que pour defar gox bi lii nii set setal bi dafa indi gën a indi ampleur pour gars yi xam ne gox bi dañoo yëkkatiwu taxaw pour dimbali quartier bi mais dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo taxaw ne en tant que en tant que jeunesse def nañ réunion defati réunion def tee débat ne bu ñu defee set setal ba am na yeneen projet yoo xamante ne ñu ko war a dañ ko war a réaliser yoo xamante ne ak yeneen ak yeneen en plus euh, dañoo manqué un peu un kii un peu de moyen un peu de soutien c'est vrai que kii yë maa ngi ko doon wax sànq ne yéex nañu koo xam dem nañ jara seeti nañ ko dem nañ ci ministre Matar Ba wax ko suñu doléance avant li yëpp di xew ne ko arène nationale daf ñoo sonal agression yeeg lépp pour dañoo soxla au mois poste de police daf nañu dinañ fa ñëw ba léegi mënuñu koo teg bët mairie jara mosul teg tànkam fii ne day defar suñu gox. directeur cabinet moo ñu recevoir. directeur cabinet moo ñu recevoir Matar Ba ba tey gisuñu. te dañoo def lu ne demande boobu lu ne def nañ ko pour am ko mais ma demee recevoir ñu directeur cabinet bi lañ kii alors que jóge nañ fii jël transport dem fa toog fa yendu ba ngoon lu metti te ñun Lamine c'est vrai que homme de valeur la mais au moins bu ñu taxawee benn jour pour gis ko même bu dul dara sax bu ñu nekkoon. dafa nekk nit koo xam ne dafa humble dof sax bu ñëwee pour recevoir ko yàlla xam na dina toog ak yow déglu la nga wax sa doléance mu bàyyi la nga dem. tey jii fan yu fan des suñu diggante ak élection yi ngay ndaw. Mhm. te ndaw xam na ne mooy ëllëgu réew mi tey jii lan ngay conscientiser ndaw ñi wax ko sa moroomu ndaw ñi ban taxawaay lañ ci war a waaw taxawaay taxawaay bi may wax ci ndaw yi mooy que jeunesse bi nañ ànd ak seen conscience tranquille en plus politique nekkul question de kon li mu wax sànq ay jox la sandis jógati dara teg sa loxo nga ànd ak lii bu jeexee ji non non jeunesse bi war a mobiliser wu surtout quartier Darou Khoudoss bari na population bi bari nañ Pikine Nord dañoo war a mobiliser wu xool loo xamante ni dina leen jëmale kanam loo xamante ni au moins dina leen permettre ñuy liggéey loo xamante ni au moins dina leen permettre ñu jàpp ci dara mais pas ñuy topp ay politique mouvement jël yab la ci car jox la 1000 francs wala 1500. nga dem ñëw bu jeexee jeex na après nga xëyaat di nekkaat ci leneen loo xamante ne loolu dafa war a jeex léegi une question la. muy laaj bu mujj bi. Mhm. yéen yéen a ko wax sànq. opposition bi ci ngeen pare nekk ci ginnaaw Lamine Gueye fas yéenee fal Idrissa Seck mu nekk. cinquième mhm. président de la république. Mhm. te ku xam Pikine Nord xam ni am na député bu fi nekk Salamata Korera la. moom mu ngi ci Benno Bokk Yaakaar. Amadou Diarra mu ngi jàppale Madické Niang. yéen ngeen fas yéene jàppale sa Seck liggéey boobu du doon lu yomb yéen ndaw ñi nan ngeen ci fas yéene taxawee ngir seen bébét mën a antu. waaw liggéey bi moom dëgg la mi ñun ay ndaw lañ mais ndaw boo gis dafa am njiit ñun pare nañ pour def bépp mobilisation ànd ak suñuy kilifa ñoo xamante ne au moins ñoom ñoo ñun nekk ñu koo xam ñun ñoo jël suñu initiative ne mais dañoo demoon réunion Thierno Alassane Sall ñu ñëpp a ngi fa woon Thierno ne àndul ak kenn mais ñun nous sommes libres xool ku ñu neex ku ñu doy ñu ànd ak moom parce que benn lañ léegi ñun puisque am nañ njiit am nañ ñoo xamante ne comme au moins comme Lamine xool koo xamante ne doy nañu mën nañu kii moo ñu doy ñu ànd ak moom. et que nekkul question de dara mais Idrissa Seck ñëpp xam nañ ne moom moo fi nekk koo xamante ne moo nekk opposant bu valable koo xamante ne moom mën na apporter réew mi dara. gars yi dafuñu quoi au moins dinañ toog xalaat xam ne mooy léegi nag ñun pare nañ pour lépp pare nañ pour bépp moins pour bépp lépp luñ mënti taxawal réew mi kanam pour jéem a fal Idrissa Seck pour mu nekk cinquième président de la république pare nañ ko ci ginnaaw Lamine Gueye